yeneen priorité dellu nga tenir compte du contexte national international des comptes publics du niveau de la dette parce que niveau dette bi sax lu ñu war a xool bu baax a baax a baax a baax la moo tax may féliciter président bi ba mu annulé yenn contrat yi nga xam ne ay trois jours avant Macky Sall di dem la ko signé loolu fu ñu ko mës a gisee une telle inélégance républicaine ci gàttal Monsieur le Président de la République Monsieur le Premier ministre Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement ñun jàpp nañ ne yéen a ngi ci yoon bu baax bi vous êtes sur la bonne voie ñu ngi leen di assurer suñu soutien total entier lépp lu ci suñu warugar ak suñu wareef dinañ ko ci def notamment défendre les actions importantes yi nga xam ne jël ngeen ko ñoom nag ñoo bëgg koo suul waaye suul mënu ko tere feeñ mënu ko tere feeñ nanu continuer en tant que ñun dañoo àndoon ak yéen campagne ba fajar kon duñu nangu kenn kuy ñëw bëgg rek defe ne ci wax ju bari ak euh, jàpp ne sénégalais yi voilà comme voilà dañu jàpp ne comme on est un peuple qui oublie qui pardonne voilà bu wax ji baree baree bare rek danañ mën a suul jëf ju baax ji ba noppi surtout ñu fàtte ñaawteef yañ defoon ñoom ñu ngi leen di encourager ci la reddition des comptes képp ku fi lubal lubal alalu askan wi nanu ko leeral dañ ko leeral kii porte plainte Mansour Mansour Faye mais j'espère que ci plainte bi xanaa dégg na dégg naa Aliou parce que la Aliou Sall wax waxuma un dixième bi man dañuy xaar plainte am bi contre moom ak yeneen njoñam vous avez le soutien entier de notre mouvement et du peuple sénégalais la ngeen ca war a def yépp def leen ko ci ñu ngi jeexale ci ñaax askanu Sénégal ñaax suñu jeunesse suñuy njiit lu ñu jàmbaar jàmbaar jàmbaar ñun bu ñu leen jàppalewul lu ñu dem toog rek ne maa ngi xaar gouvernement loolu sottalil benn réew nañu takk sër yi parce que jigéen ñi ay jàmbaar lañ ci ñoom lay commencé boo duggee boo yewoo fajar ci car rapide ñaari góor ñooy ne ci car rapide yi mooy chauffeur beeg costeur léegi ka des ñëpp ay jigéen la ñuy doon jàmbaar la président ak premier ministre jàppale leen leen bu baax a baax ngeen leen jàppale bu ngeen ko rëccu c'est des travailleuses elles se sacrifient pour leur famille di ñaax notre jeunesse avenir seen avenir fii la du tugal ngeen France ngeen ngi ngeen dem gis ngeen leen depuis une semaine mënuñoo am premier ministre depuis une semaine mënuñoo am premier ministre ñoom seen bopp lañu ñu lijjantee lijjanteeguñ seen bopp sax fii la seen avenir nekk dans l'industrialisation du pays dans la modernisation de l'agriculture dans le soutien à la pêche dans le soutien à l'artisanat dans le soutien à la culture dans votre formation professionnelle ren danoo bëgg di leen gis fii ngeen takkee jabar ci sunu kanam ami soxna ami na ami borom kër ci sunu kanam ñun nag bu nu sonnee yow si ngeen yox ñu loolu lañ bëgg waaye bëgguñu leen ci gaal yii les pirogues de la mort arrêtez les pirogues de la mort restez avec nous ici ndax ginnaaw yàlla nag bu changement amee da ngeen cee dugal seen loxo doon doon ci ay doonoon ci ay jàmbaar dëgg dëgg dëgg ndax ña ñu rey ñëpp ay jeunes lañu ñu ngi leen di vraiment encouragé doon ndaw dafa metti bu leen jàpp rek ne ñun danoo yeewu rek lépp sotti fii ngeen jaar ñun ñëpp jaar nañ ci il faut que voilà ngeen takk rekk voilà takku rek takku rek takku rek metti ngay muñ wuti formation ne ci lu jub ndax nag looloo fi nekk am voilà ci campagne bi président Diomaye nii la def lu jub rek waaye dafa am solo cëpp réew kon li opposition bu bees bi jéem te du sotti maanaam découragé leen voilà ci kaw information yoo xam ne méngoowul ak li am du ñu leen ci bàyyi du ñu leen bàyyi ñuy intoxiquer l'opinion au contraire dañuy encourager suñu gouvernement ñu leen jox aussi suñu xalaat ci xalaat boobu bokk na ci ñuy dem à la base ci comité de quartier yi mm-hmm. population yi aussi dugal seen loxo waruñoo toog rek ñu ne président day ñëw premier ministre day ñëw pour set setal mais bu ñu set setalee ba dem mais au quotidien lañu war a am les comités de propreté de quartier chef de quartier yi ñu leen di encourager pour ngeen jël initiative yooyu ak maires yi ak les comités des femmes les groupement ñu am ay concours bale d'or la jeunesse aussi ñu jàppale leen ci formation ñoom it ci set setal yeeg reboisement yeeg ñu dugal ci seen loxo bu baax a baax a baax ndax noo loolu moo construire réew yi waaw dama yoon na ma ma nekk fonctionnaire international mais la ma jot a gis ci réew yi ma visité Corée du Sud dégg ngeen guerre 1954 dañ leen a rasé woon jembiyeen fu rasé tey ñu bokk ci puissance yi gën a mag kenn jógewul bitim réew ñëw di développé seen réew dañoo takk seen digg ba indi seen réew yi fii kon c'est possible c'est tout à fait possible te dinañ ci ànd ak yéen incha allahu loolu moo doon li ñu bëggoon waxtaan ak yéen defe naa ne ñëpp dégg nañu wolof fii euh, war nañoo mën a waaw est-ce que soxla nañu tubaab ça va être résumé parce que defe naa ne li ca ëppoon solo wax nañu ko defe naa ne bu ñu jëloon question yi ma mën cee ton ci yenn yi ci français voilà defe naa ne mooy defe naa ne mooy gën voilà kon dañuy jox RTS bi nga xam xëy dañuy soxla français bi bas C'est bon, s'il y a quelqu'un, pense que je vois, voilà, Wally, allez rapidement. Bonjour tout le monde. Bonjour euh, Madame la Présidente. J'ai quatre questions pour vous. Allez-y rapidement, rapidement. Laissez-moi. Euh, la Présidente, euh, le Président de la République, lors de sa rencontre avec la question sur les fonds politiques. Mhm. Donc, quel est votre avis sur les fonds politiques C'est ma première question. Madame la Présidente, êtes-vous pour ou contre la présence du Président de la République au Conseil supérieur de la magistrature Allez-y, allez-y, allez-y. relation avec le duo Diomaye Sonko Donc, euh, de Mansour ne vous fait pas peur Voilà, merci. waaw ah, Ediga ma tontu. madame la présidente répond s'il y a possibilité de prendre d'autres questions. waaw waaw euh, pendant ce temps ñi bëgg a yeneen questions yi mën nañu ko wax. pour ce qui concerne les fons politiques. Moi, j'ai clairement exprimé ma position. Vous savez, dans tous les pays du monde, je dis bien tous les pays du monde, ces fonds existent. Vous avez entendu dans certains pays des prises d'otages. Que Dieu nous en préserve. Ou des gouvernements, ils ne l'avouent jamais publiquement, ont négocié la libération de leurs concitoyens. L'argent qui a été donné, ça vient d'où, à votre avis Le Sénégal, on ne citera pas le pays, le Premier ministre, a eu à appuyer le paiement de salaire d'un pays, d'un certain pays, qui était dans des difficultés. Mais les, les fonds viennent d'où Pour être faire que Dieu leur accorde à tous une excellente santé. Mais s'il y a un cas sanitaire important d'une personnalité, à Ziguinchor, chez le Premier ministre, ou au niveau de Diaganiao, chez le président, le président doit intervenir. Il va le faire avec son salaire de 4 millions. Donc les fonds discrétionnaires existent dans toutes les démocraties. Toutes les démocraties. Maintenant, ce qu'il faut, c'est mettre en place un système qui respecte le caractère discrétionnaire des actions. Vous n'allez pas aider quelqu'un et le mettre dans un rapport financier. N'est-ce pas Parce que là, Mais il faudra qu'il y ait évidemment un rapport adapté pour justifier l'utilisation des fonds. Voilà comment je le vois. Ce sont des fonds extrêmement importants pour les missions de diplomatie souterraine, Parce que la diplomatie, elle a deux caractères. Elle a le caractère public, mais l'essentiel des résultats sont obtenus par des interventions non publiques qui nécessitent financement. Et tout ça, c'est à partir des fonds discrétionnaires. Donc moi, je considère que euh, c'est important que ces fonds existent, mais il faudra mettre en place un système qui permettra de rendre compte sur leur utilisation. Voilà comment moi je le vois. Et en tout cas, c'est le conseil que j'adresserai au président de la République. Pour ce qui concerne le duo euh, Diomaye Sonko kooku moom ci wolof laa koy wax man li ma jaaxal mooy opposition bi benn programme lañ am xam naa nag ñaanlu nañ ci bu baax a baax a baax mooy na Sonko ak Diomaye féewaloo boobu programme rek laa dégg ci ñoom parce que nag aussi dafa di tradition seen ca parti ba man APR laa ne woon APR dama fa ne woon amitié c'est un mot inconnu au dictionnaire de la paix inconnu amut oustaz xeex ba ca seen biir ca ca biir lay doon yow ka nga xam ne moo leen yilif mooy yoon yónni diw ca télé ba demal nga attaqué ko am affaire noonu la ñuy dundee kon daf leen di jaaxal buñ gisee ñaar ñoo xam ne amitié leen lii war a mën a ànd mais nit ku baax sax boo fekkee ñuy ànd mais da nga leen di ñaanal jàmm loola yoroon lu jullit waaye tous les jours seen seul programme ñoo nga cay dox di ca ñaanlu mooy nañ feewalu waaye defe naa ne président ba tontu na leen président bi c'est le président premier ministre c'est le premier ministre qui coordonne l'action du gouvernement les textes sont très mais la ca gën sax mooy ñu doon ay xarit waaye ñoom xamuñu loolu parce que ku ci nekk nag am nga sa bés ca kër Macky Sall ku la le faites le bilan 2012 ña ñamu àndaloon ak 2024 ba ñu ko forcé mu def kana fa des ña fa des sax ku ci nekk président ba jot na laa ëmbal sa pañe moo tax ña ca am fulla ña ca am fulla accéléré lañ ngaa kanam ba dem seen yoon ba muy dem tàgguwu leen ñun yi ñoo ko bokk yem mu gis ca télé ba muy def nii moo njëkk dem gan yi sax moom waaw kooka